conseil constitutionnel bi la yoon jël na dogal gu dëppook bëgg-bëgg askanu réewu Sénégal lii di xalaatu Mamadou Mbodj coordonnateur F24. li conseil constitutionnel mooy ñu yeggali li ñu tàmbale woon parce que loolu moom mooy peut-être li gën a xam moo gën a euh, jaadu parce que bu ñu defee leneen rek dañuy weesu le 2 avril te bu ñu weesu lu 2 avril donc problème gouvernement moo fi ne. Euh, lañ nañ jàppale conseil lu wax maanaam ñu continuer processus bi ni mu demoon. F24 am na it ndam si beneen xeex boo xam ne lu tollook at a ngi nii ñu koy amal fii si réew Sénégal mu di ñu bàyyi doomu aadama yi ñu tegoon loxo te ñu jàppoon ni mbirum politique dong moo si laxasoo. xar bi mooy mu am ci réew mi benn président de république ministre am ak ay procureur am ñoo xam ne bu leen neexee ñu joxoon nit te jàpp leen diw ñu tëj ko juróom weer fukki weer fukki weer ak ñaar ñu xëy ne leen génne leen ko. te amul benn jugement loolu tuddul leneen dul dictature. Elimane kan bu collectif aar suñu élection mu ngi rafetlu it taxawaay waa conseil constitutionnel si coow lii naroon a taal réewu Sénégal. président de def nañu lu doy waar loo xam ne ñaari ay ayu bés yu ñu perte si suñu élection bi te tegul ci dëgg. loolu la ñu tooñee alors léegi tey jii nag constitution euh, conseil bi ñu waxee li ñu def ba pare il faut ñu pexe. parce que situation la boo xam ne ne mosu fi am te amul lu loi sax prévoir ci naka la ñuy def donc foog nit ñi waxtaan waxtaan bi nag il faut conseil constitutionnel dugal ci loxoom parce que moom mooy juge électoral bokk ko ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo bokk ci organisation élection yi. pour ñu jàpp nag date bu bees boo xam ne ni dina tax ñu def suñu élection dem vote ji fan suñu président. à suñu élection fas na ñoo yéene amal seen doxub ñaxtu bi ñu jàpp ni ki suba si gaaw gi.